أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة
حي إلا بالله على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم اغفر لنا وتعالى
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأسد ما تجدون من الحر من سموم جهنم وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم متفق عليه عباد الله ما ظنكم برجل حافي القدمين عري الرأس وفي منتصف الظهيرة في مثل هذه الأيام الحارة والشمس اللاهبة ترسل سهامها فوق رأسه والأرق يتسبب من جبينه ومن جميع جسده يكاد حر الشمس أن يشوي وجهه يشعر وكأنه في مرجل يغلي ولفحات السموم تصفعه بلزعتها أي شعور يحمله هذا الرجل أهو مستريح مطمئن البال أو منشغل بنفسه منزعج من حاله يبحث عن المخرج من هذه الحال عباد الله لئن كان قدرنا ونسيبنا أن ننال من حر الشمس الكثير فديارنا هذه الأيام حارة وشمسنا قوية يعد الناس عدتهم للحروب من شمسها وسمومها ينسدون الراحة والجو المعتدل فشدة الحر معزية وحرارة الشمس ولهيبها يجعل الأحياء تبحث عن زل عن زل يقيها حرها أو ماء بارد يخفف لهابها ولذا كان من كمال النعيم أهل الجنة أنهم لا يجدون الحر ولا يرون الشمس كما لا يجدون البرد زل دائم واعتدال في الهواء لا حر يلفح ولا بارد يلسع قال تعالى وندخلهم ذلا ذليلا وقال سبحانه لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا إخوة الإيمان مقوي تيال sunu xutba tey mooy aljawul xaar waqafatun muhimma tàngaay bi ñuy jàkkonte ci sunu waxtu wi nu toll dëkk bi foo dugg ñu ne dafa tàng biir kër yi biti kër yi liggéeyukaay yi dajekaay yi jàmbat bi benn la mooy dafa tàng tàngoor woowu nag dañ cee war a def ñeenti taxaw seetlu yent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na safara dafa doon jàmbat boroomam safara di jàmbat ndax tàngaay bu tàng moom ci boppam safara ne yow sama boroom lenn ci man mi ngi lekk leneen li am na benn wàll ci man benn côté benn parti dafa tàng ba day lekk yeneen parti yu tàng yi yenent bi nee na bi safara waxee loolu yàlla ne ko may naa la nga noyyi ñaari yoon su tàngaay ñëwee safara noyyi mooy ñuy fekk si fi bu sedd ñëwee safara noyyi moo ñuy fekk si fi ndeke ñun li ñuy jàmbat lii tere ñu nelaw noyyi la ci ngelawu safara safara dafay noyyi yont yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne bi safara noyyee noyyi boobu mu noyyi ci wàll ci jamono tàngaay moom moo tere waa àdduna toog moo leen xañ jàmm mbokk yi lan mooy sunu xalaat tey kenn ci ñun ci jamono tàngaay boobu ñuy wax ñu jël la dugal la ci oto yóbbu la ba ci digg àll bu amul ker amul garab ñu sànn la ci digg àll bi ca jamono bañ la fay sànni waxtu waa ngi ci diggu njolloor naaj baa ngi sànni ay ceeñeeram ci suuf tàngaay baa ngi ubale biir ak biti ñu summi sa yére ba mu set nangu sa mbaxane nangu say dàll bàyyee laak benn tubéy bu ndaw kenn ci ñun tey bu ñu ko sànni woon ci àll bu mel noonu ci tàngaay bu mel noonu waa jooju lan lay xalaat ci tàngaay boobu ñu ko sànni est-ce que danaan danaa tëdd ci àll bi rek xaar yàlla xaar dee wala ci melokaan boobu waa ji mel day jéem a sauver boppam musal boppam kenn ku ci nekk tontu boobu bàyyee naa la ko ak yow bu fekkoon ne yow lañ def loolu kon ci jamono tàngaay boobu nit ñi di jàmbat tey waajooyu ñu jàpp sànni ko ci àll ba ahuwa mustarihun mutmainul baal ndax foofu mu nekk ci tàngaay bi wër ko ndeyjoor ak càmmoñ ci kaw ak ci suuf jant bi lakk yaram bi di lakk bopp bi di lakk dënn bi di lakk lépp ci moom suuf si di lakk tànk yi te amul fu mu laqatu amul xeer amul garab amul lenn lu dul na lépp a tàng waajooju ci jamono tàngaay boobu ndax foofu ñu ko bàyyi day kontaan xelam dal na ndax kuy noppalu la kenn ku ci nekk tontu bi bàyyee naa la ko ak yow ibadallah sikk ci nekk ci ne waajooju day def bépp moyen pour génn ci tàngoor boobu sikk nekk ci bu fekkee ne loolu am na tey ci fii ñu toll jaww ji tàng nit ñi di daw di préparer ay ventilateur ay climatiseur ndox mu sedd ki ci gën a ñàkk ci ñun ci jumtukaay bu muy préparer tàngoor bi pour mën a dund tey dana ko jaral mu dem ba marché jënd benn uppukaay bu ñaar fukk pour mu mën koo musal ci tàngoor bi mbokk yi lan moo ñuy musal kon ci tàngooru jëhannama buñ ci sóobee doomu aadama bu fekkente ne ci àdduna la ñuy préparer tàngoor bi bu mu laal mu jaral ay nit di daw dem sorti vacances duma liggéey jamono tàngaay la mu daral la nga daw dem sali ñenn ñi mu daral mu jaral leen ñu daw dem Europe ñi jëm Ngor ñi jëm Malika ku nekk sa xel fa mu dale ne fii tàngaay du la fa fekk nga daw jël vacances daw dem fa ñenn ñi dañuy dem ba tefesu géej tëdd samp ay mbaar di bronze wu ne wala dañuy daw naaj ixwaan yi mbokk yi ci yàlla ci ñun ana kan mooy préparer safara soo xam ne yàlla mu ne boyal nañ ko innaha tarmi bi shararin kal qasr ka annahu jimalatun sufr boyal nañ ko ba muy sànni ay étincelle yu toll ne ay château étincelle u safara comme château la toll château amul Sénégal wala bu fi amee benn la fi innaha tarmi bi shararin kal qasr yàlla mi ko doon melal nee na ka annahu jimalatun sufr dafa xonq jaune ba mel ne gëlëm nu mel ndax safara bi mbooyee noonu la mel yàlla mu ne wa atadna lahum azaba sair xaroo naa nit ñi dencal naa leen mbugal mu leen di lakk kalla innaha lazza nazaatan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jamaa fa awaa yàlla ne safara bi ma leen dencal day ñori deru karam di ñori deru bopp ku bëgg daw sax moom safara si moo lay woone la ñëwal dugg borom bi ne la yunbazanna fi lxutama wa ma adraka ma lxutama mu ne naarullahi lmuqada التي تتلو على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة yàlla mu ne dinaa leen dugal ci safara soo xam ne du bàyyi yax ci yaram lu dul da koy dammati amul lu muy bàyyi lu dul dana ko lekk yàlla nee na lu ma leen di tëj la ci ay poto yoo xam ne ay pieds yoo xam ne doomu aadama yombul ci moom mu yëngal pieds yi ixwaani fillah su fekkee tàngooru àdduna moonu sonal tey mënuñu nekk mënuñu dund nga gis borom kër ci këram futteeku ba set deso kilo soo ko nee lii laa la mu ne la dama tàng te tàngoor woowu yonent bi nee na safara mooy noyyi iza staddat alxar fa adbiru salaa fa inna siddat alxar min fayi jahannam yonent bi nee na bu tàngatee bu ngeen doon julli tisbaar mu ne yéexe leen ko bu leen ko julli ci jamono tàngaay bi bàyyi leen ba ker gi sedd wala mu xaw a sedd lu ko waral mu ne safara mooy noyyi bu fekkee safara mooy noyyi ñun ñu am problème ixwatal iman buñ ci sóobee doomu aadama kon fu mu jëm ci yaram yu nooy yi ci yaram yu doyadi yi ci yaram yi nga xam ne attanul dara kenn ci ñun tey su soloon dal xeer nekk ci suufu dàll bi doo am jàmm lu dul nga toog simbi dàll bi dina xeer bu fekkoon ne dëgg la bu doon ne pont bu doon ne butéel koo jëm xeer boobu moo ci gën a tuuti doo am jàmm lu dul nga toog simmi dàll bi génne xeer bi nga doog a mën a am jàmm kon bu doomu aadama buñ ko jëlee bu ko dugal safara fu mu jëm Malik ibnu Dinar nee na su ma amoon mooy am kattan danaa jël doomu aadama yi tas leen ci kaw suuf ne leen fajar gu nekk jaar leen ci buntu kër gu nekk fëgg leen fenêtre bu nekk ne borom kër gi annaar annaar annaar ñetti baat ngeen doog a dem ngeen fàttaliku safara yonent yàlla Muhammad dafa dem laylatul isra wal mi'raj mu gis Mikaayil mu ngi ñëkk kanam gaa ngi lëndëm tuñ yaa ngi tëju yonent bi mu ne Jibril kii kan la mu ne ko Mikaayil mu ne ko lu tax mu mel nii mi abuus ñàng mu ne ko dafa ragal reetaan yàlla dugal ko jahannam moo tax musul reetaan aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون mbokk yi gis ngeen borom bi subhanahu wa taala dafa musal waa aljanna ci yi ma wax tàngaay du leen lor sedd amu fa ndax borom bi tabaraka wa taala xam na ñaar yooyu dafa bokk ci ay mbugalam moo tax mu musal ci waa aljanna ñooñu du ñu yëg tàngaay du ñu yëg seddaay keppaaru aljanna dafa sax dàkk jaww ji dafa yem tàngoor amu fa sedd amu fa duñ fa dégg mukk ay fett fettu safara moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne waa aljanna wa nudxiluhum zillan zalila ker gu ma sëkk guy keral lépp falaa leen di dugal yemul foofu mu ne laa yarawna fiha samsan wala zamharira waa aljanna du amul tàngaay amul mbooya duñ ko yëg ibadallah الحر شديد والأجسام ناعمة ضعيفة لذا نود أن نقف بعض الوقفات مع هذا الحر التي نرجو منها وبها النجاة mbokk yi sunu yaram yi nooy na trop puso sax lenn ci ñun tey bu ñu feebaroon ñu yóbbu leen ci hôpital ne la dañ lay pikiir ak comprimé baa ngi nii comprimé bi li muy faj loolu la pikiir bi di faj ban la ñuy taamu da nga dégg waa ji mu ne ñun ñëpp bu doon ñu la da ngay dégg ñu ne jox ma comprimé bi parce que xam nga ne ñeme woo puso bi doo bëgg ñu tam ko ci sa yaram lu ko waral mooy sa yaram bi moo ko ñemewul attanuloo ko loolu moo tax ci tàngaay bii ñu bëgg a taxaw ñeenti taxaw yii bu ci njëkk mooy bu fekkee tàngaawur bii moo nu sonal ñu préparé ko ci lu mu mën a doon jël financement nga gis koo xam ne néegam saalam bi muy yendu wala néeg bi muy fanaan climatiseur bi mu fa def mën na deux cent mille soo ko ne lii nag mu ne suuf ki nouveau modèle la parce que tàngoor wi non man mënuma ko dégg mënuma nelaw fu tàng inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kooku sax ku ndaw la parce que moom loolu la def am na koo xam ne tey moom moyens yi mu utilisé yal nañu yàlla yërëm loolu du ko waral mooy day daw tàngoor noonu ñuy préparé ci àdduna di waaj benn waay dafa tabax kër gu rafet ñëw jëli sëriñam di ko kaay ñaanal ma ci kër gi sëriñ bi ñëw dugg fépp visiter kër gi ba mu daj mu ne ko ni nga def kër gi ba bu safara ñëwee bàyyi ko fi bu ndox ñëwee bàyyi ko fi fexeel nga def noonu sa yaram bi ëllëg bu la jahannama mënal dara mais xam ngeen ne ñun ñëpp tey loolu la ñuy def dañuy ñàkk suñu kër yi ñàkk suñu lépp li waa ji di wax ibnaya inna min arrijali la bahima fi surati arrajuli samii lmubsiri fatinun bi kulli musibatin fi maalihi waaye wa ida usiba bi diinihi lam yashuri doom mu ne ah mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne ñoom rabu àll yi ñoo yem dañuy sol yére di sol tubéy am loxo am tànk am lépp lu nit am tudd sax turu nit waaye ñoo bàyyi ma ñoo yem ñi yàlla naan summa radadnaahu asfala saafilin ay mbindeef lañ ay doomu aadama lañ lan moo tax ñooñu nekk ay doomu aadama nekk ay rabu àll mu ne ñooñu dañoo muus bépp musiba bu nar a yàq seen dund ñoom pare nañ pour rey loolu kër yi dañ koy aar tey boo demee ci kër yi giri yi bunt yi fenêtre yi bunt yi giri weñ la porte yi porte en fer léeg-léeg nga gis ku ci def lépp ba pare du ci yem mu jël ay xott bu tël def ci miir bi jël ay weñ def ci miir bi jël gardien jox ko pistolet loolu yëpp pour lan la pour aar boppam may aar sama bopp est-ce que ni nga aaree sa bopp ci àdduna yaa ngi aar sa bopp àllaaxira ci biir safara jahannam ba doo dugg loolu mooy taxawaay bu njëkk bu ñu war a taxaw di daw tàngooru àdduna te tàngooru àllaaxira moo ñuy xaar te tàngooru àdduna bii ñuy daw jahannama moo koy noyyi ngelaw li la ngelaw ni ngay uppoo ngelaw di génn noonu la jahannama di noyyee la ko yàlla may mu noyyi noyyi bi fekk la fi mënootoo dund nga am problème mu toog ngay étouffé mu jaral la ngay daw di voyage di wuti plage di wuti place boo noppalu di wuti ay matériel yu la aar te fexe woo mucc ci safara jahannam ñaareel bi mooy hal istaasna azime niam allahi alayna hina yassara lana min wasaili tabrid wa takyif ma tatmainu bihi nufus wa naqiya biha ala sams wa samumiha fa shakarna rabbana ala dhalika wa tarakna al israfa fi isticmali hadihi al ajhiza ñun ñi yàlla may ay moyen nga xam ne sax uppukaay mën nañ koo jënd upp mën nañu dem jënd mbuusu ndox mu sedd juróomi dërëm mën nañu jënd ventilateur pour mu ñuy upp mën nañu jënd climatiseur mën nañu jënd ay frigo yàlla moye boobu mu ñu may ba ñu mën a mucc ci tàngoor wi est-ce que sant nañ yàlla ci moye yooyu ci jamono yooyu di nga gis ñoo xam ne amuñu yëre bu ñu sol amuñu lekk bu ñu lekk amuñu naan bu ñu naan bu ñu feebaree amuñu lu leen faj bu ñu ndékkee du ñu añ bu ñu añee du ñu reer yow nga yor lu ne gàññ ba dem di jënd benn climatiseur quatre cent mille bu la musal ci tàngaay est-ce que sant nga yàlla ci xéewal bii mu la defal mu ne la wa amma bi ni'mati rabbik fa haddis i'malu ala daawuda shukran wa qalilum min ibadiya shakur nit war na sant yàlla nga xool yàlla lii mu la defal xéewal bi nga xam ne waroo yàq waaye yàlla moo la koy ma moo la ko may bàyyi say morom nga sant ko ci lim la may loolu mooy ñaareelu waqafa bu ñu war a taxaw ci tàngoor bi ñetteel in kunna nastati ittiqaa alxarr wa shams fi hadihi dunya bima ataaha allahu lana min alwasail wal ajhiza wa yumkinuna as-safar ila albilad mbokk yi bu fekkente ne allah subhanahu wa taala ci moyen yi ñu ñu may mën nañu ci àdduna yàlla xéewal yi ñu may may ñu ay jumtukaay ñu mën a protéger suñu bopp ci tàngoor di tukki di dugg fu nekk loolu noonu lan lañ ci war a fàttaliku mooy ëllëg yowmal qiyam yàlla subhanahu wa taala nee na fii ci àdduna moom mën ngaa daw tàngoor wi mën ngaa ut ay machine yu la aar waaye àllaaxira fan ngay jële ban machine fan ngay jële appareil bu la aar ci jahannam bu la ci yàlla soobee yeneen bi ne ne nit ñi dañu ñàq yuqraqu nnaas yowma alqiyama hatta yazhabu araquhum fi l ard sabina zira yeneen bi ne ne nit ñi dana ñàq 7 mètres 7 mètres ñu ñàq ku ñàq 7 mètres 7 mètres bu ko doomu aadama ñaqee mu ne ñenn ñi ñaq bi dina leen ngalaat ñenn ñi ñaq bi dina dem ba muur seeni nopp dootuñu gis nopp yi kon ça veut dire que am na ñu ciy lab ci ñaq tey kon lan moo nuy aar ci allah subhanahu wa taala mooy jaamu yàlla ku bëgg a aaru ci safara soosu ci tàngoor boobu yàlla subhanahu wa taala di nu wax lan moo la ci musal mooy jaamu yàlla kese bàyyil bokkaale royal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal ndigal yi bàyyil tere yi xamal ne amoo lenn wala kenn ku la mun a musal ëllëg boo jaamul yàlla bu nu jaamul yàlla amunu kenn wala lenn lu ñuy musal ci lu nu teree dugg jahannam keroog bu yàlla naan xuzu Abdullah ibnu Abbas nee na bu yàlla ne malaaka yi xuzu nee na juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo lay njëkkanti benn malaaka rek ëpp na ci doomu aadama benn waxuma laa juróom-ñaar fukk junni mbokk yi ci yàlla ñeenteelu taxawaay bi mooy ibnu aadam qad wasafahu llahu bi annahu zalumun jahul wa min jahlihi adamu rida xaalihi wa hada min tabiati albashar walakin almuslim يرضى بما قدر الله من خير أو شر قال صلى الله عليه وآله وسلم أجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابه شر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له أخرجه مسلم ñentel may doomu adama du muñ doomu adama day sakk jëf dafa bokk ci iman juróom-benneelu ponk ci iman mooy al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi su tàngee nga muñ su seddee nga muñ waaye yatamanna al maru fi sayf ashita fa ida jaa asita yankaruhu utila al insanu ma akfara tey bu tàngee ñëpp taxaw di jàmbat dafa tàng dafa tàng dafa tàng ayna al iman ayna al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi lu tax duñu muñ su tàngee yàlla la da nga war a jaam nga da nga war a muñ su seddee yàlla la da nga war a muñ mais jàmbat est-ce que dafa bokk ci ngëm jàmbat yonent bi nee na i Umar atuminuna ankum mu ne ko naam ndax gëm ngeen yàlla Umar ne ko waaw fa ma alamatu imanikum mu ne ko narda bil qada wa naskuru fi raxa wa nasbiru alal bala narda fi raxa su neexee ñu sant yàlla gërëm ko wa nasbiru alal bala suñu musiba laalee ñu muñ wa nashkuru fi raxa su neexee ñu sant yàlla loolu la julli di def mais di jàmbat dëkk bi yëpp jàmbat la dëkk bi jàmbat la foo tourné guddeeg bëccëg ñu ngi jàmbat mbokk yi ci yàlla yal nañu yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaay yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne jullit mooy koo xam ne yarda bima qaddara allahu min xayrin aw shar day dëkk ci lu ko yàlla teg ci lu neex ak lu naqari di ci bég kontaan ci lii la yàlla def mu ne ko waaw lii la la yàlla teg mu ne waaw lii la la yàlla may mu ne waaw kooku mooy jullit waaye jullit boo xam ne bu neexee ñëpp dégg baatam ci kaw mu kontaan di sant su naqaree kenn dootul dégg baatam wala nga gis ko mu nekk ci mbedd yi di jàmbat di taxawaalu ab jullit day muñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man yéemu naa man yonent yéemu naa ci mbiram jullit nee na jullit yéppam yiw la lépp lu ko dal tiyaaba la ci am su ko nattulaalee mu muñ mu nekk xéewal su amee lu neex mu sant yàlla mu nekk xéewal yonent bi nee na ñaar yi kenn amul ko ku dul jullit jullit rek moo ko am su ko nattulaalee mu muñ mu nekk tiyaaba xoolal jullit bu feebaree yonent yàlla Muhammad lan la wax su daan seeti ku feebar bu ñëwee fekk la nga tëdd da la ne laa ba'sa tahuur insha allah du dara yàlla moo lay fóot rek laa ba'sa tahuur insha allah du dara yàlla moo lay raxas da nga fees dell ak i bakkaar yàlla moo lay fóot bakkaar yi bu jeexee nga wër dem abu darda wala abu zarin il gafaari dañ ko ne loo bëgg mu ne ñett ñu ne ko lan mu ne di woor fu ma toll ñu ne ko ak lan mu ne di feebar fu ma toll ñu ne ko ak lan mu ne ak dee subhanallah ñett yi kan moo ko bëgg fii ci ñu ñu ne ko abu darda abu zar yow ñett yi kenn bëgg ko ci àdduna bi lu tax nga bëgg xiif di mu ne fu ma toll da xiif woor di woor fu ma toll mu ne boo wooree doo am benn bakkaar da ngay oyof toll doo am benn bakkaar ñu ne ko tax nga bëgg feebar mu ne bu ma feebaree bàkkaar yi yàlla daf may fóot ba ma set ñu ne ko lu tax nga bëgg dee mu ne bu ma dee dajeeg yàlla mu dugal ma aljanna xoolal ñett yi kii bëgg buñ ko tegaloon fii tey ab doomu aadama ci ñun avion lay ut du ut sax oto pour daw ixwatal iman nañu yëg ne dañu war a sant yàlla subhanahu wa taala ci bépp xéewal bu ñu am wala lépp natt bu mu teg suñu kaw ñu xam ne ñun ay jullit lañ ñun ñoo taamu yàlla ñun ñoo tànn yoon woowu iman du rek xaalis bi di fees poos yi fees yaram bi wér lépp nekk jàmm rek nga ni am naa iman mais yenn saa yi yàlla natt la alif lam mim ahasiba annaas an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun yenn saa yi natt ñëw am am bi sax yenn saa yi mu nekk natt fa ama alinsan ida mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naama fa yaqulu rabbi akraman wa ama ida mabtalaahu fa qadara alay risqa fa yaqulu rabbi ahaanin bu ko yàlla mayee mu commencé bàkk xool leen ma xool leen ma su ko yàlla nattoo mu commencé saalit loolu du mbirum jullit allahuma igfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna bada almawt birahmatika ya arhama arrahimin اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوحا وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكته اللهم لا تجعلنا جبنا فنتأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم السلام
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
tollale sàppe yi ci kaw ak ci suuf ñu fay portable yi ba ñu pare julli allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر allahu akbar allahu akbar allahu akbar السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله